juróom fan la gane jamono ak fan la jàng alxuraan mhm. jërëjëf Oustaz may nuyu sëñ Moussa daa tudd Cheikh Amadou Kara mhm. waaw muy sunu wayjur di sunu sëriñ mhm. koy mu yàgg fi loolu te wér di sunu soppe siyaare njabootam ga yëpp teg ci siyaar bi ci loxol Ahmada Cheikh Ahmada Kara siyaar taalibeem yëpp di ko teg ci loxol al amin Oustaz nag da laaj-laaj bu am solo muy sëriñ Saliou fan la ganee jamono ak fan la jànge alxuraan loolu nag di lu ama am am solo waaye ma am wet gu ma bëgg a njëkkee tontu li ndax nit sëriñ Saaliwu saa yoo tuddee jëmm day am ñaari wet daa am lu ñu tuddee wetuk saahir am lu ñu tëdde wetuk baatin moom li arab di wax ne li kulli baatinin saahirin wala li kulli saahirin baatinin koo gis rek am na wet gu nëbbu am wet gu feeñ loolu ci ñëpp la nag wàllu wetu juddu. Mhm. am foo feeña jamono. Mhm. am foo jaar. Mhm. am foo jànge yooyu yëpp mooy wet gi nga xam ni mooy feeñ ci forme physique. loolu yi nag mooy saaxiir si. saaxiir soo si nag day am lu ko ëmb muy baatin bi ko gis muy dem rek daa am saaxiir am baatin ñun ñii toog suñ jëmm yii toog nga xam ne mënees na ko làmb daj ko. mënees na koo xool gis ko. mënees na cee jëflanteeg ñun mooy sunu saaxiir. waaye kenn ku ne ci am nga baatin mooy sa ruu. yow mi ko moom sax mën na koo gis mën na koo làmb daj ko waaye moo tax nga am ay activité waaye fi ñu toll nii même plateau bi ñu toog nit ñi di ñu seetaan ñun ñi nuy gis ñu nuy seetaan ñu toog ñooy saayir si waaye ñi tax nu mën noo seetaan ñooy baatin bi fi ne kenn gisu leen mm. loolu nag fi ne koo gis ku ne loolu da koy dal ar ruuxu min amri bi moo tax damaa bëggoon a njëkk a tontu ci mm-hmm. eh, Serigne Saliou moom ngir nga xam ko mm-hmm. faaw dangay xam sëriñ Touba mm-hmm. waaye mënoo xam Serigne Touba momi itam. te fekkul nga xam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba noppi. waaye yonent bi d'abord. mëno ci amu xam-xam te xamoo borom bi mooy yàlla. ndax Serigne Saliou xam nga day Serigne Touba. ndax lolu Serigne Touba moko wax. domam la waye mom la. ndax dafa wax ne lin qadatil ujur wal masaalihu bi tay wal ges bi inni saalihu kooku may mom kon mëno xam Serigne Saliou te xamoo Serigne Touba mëno xamit Sëriñ Tuubaa te fekkul nga xam kuy rasulullah salaa salaam mënoo amub xam-xamit ci rasulullah salaa salaam te moo ab xam-xam ci yàlla mhm. euh, Sëriñ Saliou avant may ñëw ci wàllu saahir soos yi mhm. muy ab feeñam jamono ci njaareem 1915 ak yu mel noonu mhm. avant feeñ jamono ji 1915 la gën a àdduna àdduna ci njaareem waaye Sëriñ Saliou daa doon benn programme ci programme yàlla yi yi nga xam ne da ko programmé ci ësal ndax man nag dama ko bëgg waxtaanee ci wet goo xam ni ana xaw wuté wét yi ya nga xam ne nga daan dégg ñukay koy inshallah mo mo yop solo sax. ndax taarixam. Mhm. ñu bari bari mokal nañ ko. tay loolu am solo la nag muy wet yooyu. Mhm. waye loolu day am lu ko ëmb. Mhm. sëñ Saliou. dafa bok ci ben programme yàlla. programme bobu nak suñu borom dako ko programme ci ësal mu doon nak ci bi programme bi lo xam mëno dégg mbirum Serigne Saliou mukk te xamoo programme bobu dégg programme ba. برنامج بي سون بروم داكو اندي تي القران موي فرا خما يالا بارنا تي ليب ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمه بالبشر ليب نوبي نتي يالا ا بوتنسياليتي ndax yalla amul temps ak espace ak heure ak waxtu lepp da tewon do ci kanamam yep nañ ko programmer waye nak ñun ñi nga xam dañuy dund ci temps nak nga xam ne lu nu weesu démb mënuñu ko indiwaat tey loo ko yàkkamti yàkkamti mënu koo ñoddi suba it doo ko ñoddi ba mu dikk ñun moom dañuy xaar rek ndax yàlla dañoo tënk ci loolu <laughs> ñun la ñuy muril mbir yi par ndànk mhm. léegi nag bu fekkee danga nga koo bëgg a xool ci liñ la indil tey doo dégg Serigne Saliou programme yàlla boobu bu ma ko laajoon dafa am benn benn société bu yàlla ko créé ci àdduna mhm. boo xam ne Serigne Saliou da caa doon loo xam ni mhm. mooy la ca gën rëy bokk ci résultat yi ca gën a rëy suñu borom dafa kéréel boppam benn société tudde ko aw tur tur bi tur bi mi ngi tudd yërmande yàlla mooy arrahma tur wi it yàllaa ko joxal boppam société bi waaw yàlla xam nga ne ustaad naka jekk defee ne mhm. te mosu fee dañ di ne mhm. moo jiitu lépp tamul fu mu yem mhm. huwa al wal aaxiru wal zaahiru wal baatinu mhm. wax nga bikku li seen xalim lépp daje ci moom soxla lu kenn dara ñëpp yittewoo ko mhm. suñ borom moomu moo toog ba yàgg mu ne dara waruma yàlla amul lu ko war fi ne mhm. dara dudul obligation ci yàlla yàlla toog ba yàgg nag mu ne maa warlul sama bopp yërëm sama jaam ñi maam yërëmande warlul naa ko sama bopp booba la créé turu société jàppal jàppal li ma wax par benn muy raxma ji di koy wax nag ci alxuraan dama laa bëgg wax Sëñ li mu doon ci programme bii kataba rabbukum ala nafsihi rahma yàllaay wax man seen borom kat dara waruma waaye waralool naa sama bopp yërmande ba tax na sax dama koy ubbil benn société boo xam ne jox naa tur wi joxe naa tur wi mooy yërmande man yàlla yi maa ko wax kataba dogal rabbukum seen borom mi dara warut ci moom ala nafsihi waralool na boppam arrahma daan na yonent bi déclaration boobu déclarel ma ko yow waxal ni yàlla seen borom nee na dara waru ko warlul na boppam yërmande qul lillahi kataba ala nafsihi rahma la yajmahannakum ila yawmil qiyamati yow yonent bi waxal ni yàlla seen borom warlul na boppam yërëm leen société bi daal di créé wu nag am na tur société aw tur. ca ala nafsi rahma ji nga wax sax boo continuer tuuti. annahu man amala minkum su'an bi jahaal. summa taaba min baxdi. day waay ni day waay ni yërma ji mi ngi noonu. ma ngoo bu ko defee déet éliminé woo yow yow yaa ngi ñëw. kon ñu wàcc ko. Ah. Eh, bu ngeen commencé wax ne ay simaare day doy waar ci sëñ Saliou ñu baree bari ci noonu buñ ko dee waxtaanee dañ naan moo juddoo fii doomi sëñ Tuubaa ji doomi sox soxnam sun maam maam Fatou Jaxate moo baax mi mbaakool mbaakool bi mhm. borom jikko yi tedd yi loola rëy lool mhm. waaye loolu la muy rëy rëy sëñ Saliou daa ëpp loolu xanaa xamoon bu nit ñi xam ne sëriñ Saliou rek àdduna baax mhm. loolu laa la bëgg a wax ndax dafa bokk ci programme bu yàlla bi nga xam ne xam ko mooy sooyowaate sëñ Saliou yërmande yàlla la boo tax nga gis ko mu naan ku dul yàlla mi sàkk mindee fi ëpp ma yërmande ci ñoom loolu résultat la te résultat foo ko fekkee daa am lu ko jiitu résultat doo ko feeñ loolu nag laa bëgg nu ñëw ca léegi wax cause à effet voilà am cause ba pare laa bëgg nu ñëw ci bismillah gis nga kon léegi société bi créé wu na ku ko créé yàlla mm-hmm. ci boppam la créé ke société bi mm-hmm. ndax dane maa war loolu yërmande ki sa bopp mm-hmm. waaye ko ne xam na ne ab société aw tur rek yoru ko premièrement bu amee tur daa war am jumtukaay yu mu liggéeyee. waaw am projet tamit. waaw kay day am projet yooyu yëpp daa ci dikk. Mhm. jumtukaay yi yàlla daa ne société bi dama koy wutal ay jumtukaay. nga mhm. xam ne ci lay liggéeyee. Mhm. waaye jumtukaay yi itam mook turu bi ñooy bokk tur. duglu li walay wax mooy ne ba tey. xam nga liy yu société bi. alquran ak lislaam mooy ñaari jumtukaay na yoo xam ne matériel boobu ñoo ëpp matériel yëpp. ndax dafa dajale leppam ci biram alquran ma faradna fil kitab min shay'in lepp nga ca alquran wa kullu shay'in fasalnahu ala hilmin alquran li kulli shay'in tibyanan kon lepp ngi ci bir alquran alquran momu ak l'islam mu ni ñoy jumtuka yi société bi di liggéeyee comme ni ngay amé société am ay matériel yooyu liggéeyee néna nak jumtuka yoy yooyu ba tey seenu tour mok tudd société bi ñoy am yermane la tudd alquran ay wax kat ñu nak alquran num tudde yermane mu ni yonent bi wa maa kunta tarju أي يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين سوت قصد تير بي ما واتي تيو بول جابنا لنا لن لودول يرمندي سا بروم دي نيو تيو ياغي غيس كون جيمي القران يالا داكو يرمني الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمسلمين تير بي سا بروم واتي ناغي خامني نيوبلا وا يرمندي لا نيل مي ديفي wa nunazzilu min alqurani wa rahmatun lil muminin alquran ji kat maa ko wàcce waaye maa huwa doonul ludul shifa du ñëw ngir saafara di faj waaye wa rahmatun lil muminin di yërmande ñeel ñi gëm nga xam ne fu ne la ko tuddee yërmande ci alquran yaa ayyuhan naasu qad jaatkum mawxisatum min rabbikum wa shifaun lima fi sudori wa hudan waaye wa rahmatun lil muminin jaajowaat ne xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajmahun neena na yonent bi na nga xam kat waxal nit ñi ne len mhm. sa borom wacc na ci ñoom ab téré mhm. bu ñew ngir war len ngir faj jangoro yi len dal ci sahir ak ci batin mhm. waye téré bobu yi na ngeen xam dara andi wuko fu lu doon yërmande yi ñiko gem da na man yalla nak wax na ne nga déclarer ni sama yërmande juma wacc ci yeen ak sama ngeenel lu len di dajale lolé ko gën ci yeen kon bo xolé ay yoy yëpp sun borom wane ne kon alxuraan turum yërmande la moy ben benn kay ci société bi waye l'islam l'islam itam yërmande la motax sun borom wax ni fa amma allatina amanu fek daa njëkk wax sana yaa ayuha nnaas xad jaakum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma allatina amanu billahi wa tasamu bihi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihimu ilayhi siratan mustaqima dégg nga alxuraan mu ni yàlla yàlla ne yonente bi téere boobu nag ma wàcce alxuraan ci yàlla doo nga mën a yàlla doo nga mën a indi alxuraan gis nga lii xanaa xamoon bu la rëccee seen <laughs> saalibu rëcc la société bii mu yàlla di créé nii <laughs> turu société génn na yàllaa ngi génne matériel yi mhm. mu ni tur wi yërmande la tudd matériel yi it yërmande la ñu taxawee mhm. moo tax mu ne ko alxuraan ji ak lislaam ji alxuraan di atte mhm. ndax alxuraan loi bi mooy mooy téere bi atte loi l'islam mu ne ko ku ca ngooy nag nekk ca di ca dox yaa ngi ci siraatal mustaqim waaye moo tax sax bi muy matal diine ji dane al yawma akmaltu lakum diinakum waaye wa atmamtu aleykum kon gis nga maa ngi mottali samay xéewal ci yéen kon nekk ca diine ji xéewal la yërmande la wa raditu lakumul islaama diinan gis nga moo tax sax ku yàlla mësuta yërëm du la dugal ci lislaam effectivement afa man saraha allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbihi fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min dikrillah ulaika fi dalalin mubin moo tax muy wax ni kum nërta yéem rek nee na du dugal sa xol lislaam fa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil islami wa man yurida nag an yuddillahu yajhal sadrahu dayiqan harija fa ka annama yasad ka annama yasad gis nga kon ñaari jumtukaay yooyu nag muy alquran ak lislaam ñaari jumtukaay yoo xam ni ëmm na lépp li société bi nar a liggéeyee te dara du manqué ndax ñaar yooyu dafa mat ndax ñaar yooyu dafa bàyyi ko ci yàlla mu man mi waaye taxul société taxaw de. day tax société taxaw. ah aw bitse am. bitse waaw xaalisam bu amul bitse. waaw xam nga du mën a gunaan. suñu borom nee na nag léegi ma créé laa ko bitse dama lay wax société bi investir Sine Sall. bisimilah bisimilah la. mu mu mu créé ko benn bitse. nee na bitse bi itam moog turu société bi ñooy bokk tur. Ah, dama laa bëgg wax kii yërmande ji ji daje ci moom. Mhm. société bi yërmande la tudd. matériel yi mi liggéey yermane la tudd muy alxuraan ak l'islam waaye nee na bitse bi bitse bi nga xam ne ca lay liggéey yermane lay tudd moom it bitse bi nag yàlla nee na lu bitse foor foor sama bitse société bi ko ëpp doole ñu ne ko la tax mu ne wa rahmati wasihat kulla shay'in fa sa aktubuha lillazina yattaquuna wa yutuuna zakata wallazina hum bi ayatina yuminuun suratul ahraaf waxaat na it wa rahmati wasihat kulla shay'in faxfir lillazina taabu wat wattabahu sabilaka waqihim xasaabal jahim mm. surtout sumur wala surtout xaafir suñ borom ni sama yërmande nag mooy bis sépp société bi daan taman yàlla sama yërmande moo ëpp lépp lu mën a doon lu mbir rëy rëy rëy rëy rëy su ngeen ko dugalee ci biir sama yërmande mu lap moo tax ku yàlla gàttandoo yërmandeem mm-hmm. loo taq taq set قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا نعم. تخنتوا رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم غفور رحيم يرمان سونو ياتو غوغو موتا صح يمو تي ياتو واي دامي مو اوب صح ليب فار لو مير ياتو ياتو لو مير ري ري ري سوكو دوغالي مولاب كون كان ياتو تول موي لو نيت ген ادرو ني يال نكو يال ات تي يرمان تي يرمان بو خامي محريفه صح داغي خامي يرمان موي موي ديب ياغي ديك كون غيس نغا بي امنا تور يالا كريينا تور وي سي بوبام wutal na ko matériel bu muy liggéeyee loola yi tur wi mook tur wee bokk mu yërmande mooy raxma bi ba tey raxma ba tey mm. ndax alxuraan lay liggéeyee ak lislaam raxma la bisse bi tamit di raxma bisse bi tamit di raxma waaye ñett yooyu yoru société di waa amee tur dong fi mu ne am budget am matériel ah, taxu gu nga man a liggéey waa amagoo personnel mm. falagoo directeur général <laughs> déedéet ba noppi it euh, société boo gis mm-hmm. day am cible di day am ñum ciblé mm-hmm. waaw waa télé bi. téléspectateurs yi lañ si bile di. mécaniciens yi oto yu paan yi. Ah, docteur yi ñu feebar. waaw marché boo gis daal ñu ngi si bile. waaw yaa ngi dégg. waaw waaw docteur docteur ba ma fajee ba ma ma naan ko. yàlla yàlla na xam bi yokk yàlla bu kenn feebarati mu nekkoon de sama njaboot xiif rey leen. waaw waaw kon ñett amagut na. bi am na tur. Mhm. am na matériel. Mhm. wutal nañ ko bitise. Mhm. waaye suñu boroom nee na. damay njëkk nag keryel ko ñum ciblé nag léegi mhm. ñi muy ciblé kon suñu borom moo leen créé. lépp société bi amuñ ko ci def dara dama laa bëgg wax ne la dama laa wax ci tàmbali gi la Sëñ ci programme bu yàlla la dugg waxuma mbindeef yi de mm-hmm. ci programme bu yàlla lii ma la jot a wax lépp yàllaay programme fii ne li mbindeef duggagu ci mm-hmm. yàllaa mm-hmm. moo moo moo créé ci boppam alxuraan ci yàlla la jóge ak moo créé bitse bi ci boppam ndax nee na mooy yërmandeem waaye noonu it moo koy créé ñi muy ciblé fi ne jaamam ñooñu itam mhm. ci yërmande la leen di sàkke bu ko defee moom daa mat mhm. bu leen sàkkee dañuy matal yi dañ koy aajo bu ko defee siinug lott ci la leen di mën a yërëme mhm. ba tey alxuraan yi ñëwaat de suñu borom ne arrahman xallamal alxuraan procès ba tàmbali na xalaxal insaan xallamahul bayaan lépp ci raxmaan lay dellu fi mu ne assamtu wal xamaru bi husbaan wan nañ mu wasajaru yasjudaan wasamaa rafahaha wa wadahal misaan ألا تبقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودهها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الحس والريحان فبأي آلاء ربكما تكسبان خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكسبان رب المشرقين ورب المغربين صار وجهي كم صار لوم دور فوار يعني بوفوار بتعمل ايه doo gis kenn ku ne ñëw exposé say matériel maa la wax loolu suñ borom nag su raxmaan mooy fu waaru alxuraan mm-hmm. da ciy exposé ni mu sàkk bindee fi maa sàkk nit sàkk jinne sàkk jant ak weer sàkk suuf si sàkk asamaan si xoolal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi créé mm-hmm. ñi nga xam ni après société bi ñoom lay civilé ñoom mm-hmm. ci li mu war a liggéey mooy jaam ñi ndax ñooy soxla yërmande yàlla yaa naa naasu antumul fuqaraa ilallah wallaahu nag huwal ghaniyyul hamiid jaam ñi ñëpp dañ nay aajo wooman yàlla ndax yàlla mooy l'absolu waaye jaam ñëpp ay relatif lañ macha allah relatif nag day soxla l'absolu chaque jour ndax soli mooy ki dépendre ci kenn te ñëpp dépendre mooy assamadu mm-hmm. mooy assamadu assamadu da mm-hmm. ngi dégg mm-hmm. loola nag nee na mi ngi ko defee ci rahmaan ba tey gis nga yërmande moom la sàkkee moom ñi nga xam ne ñoom la soxla ci marché bi waaye ba tey société bi jeex a gudde am na tur am na matériel am am na bitse xam na ñim ciblé ñan la mooy jaam ñi nag ku dul yàlla nag ci nga dugg ci jaam ñi waaw yaa ngi dégg mhm. waaye ba tey ba tey nee na nee na nee na nee na matagul lu des dana ko la mu ne directeur général bi fa la gu ak objectif fi mu toll nii <laughs> waaw société boo gis. joxoon na cible yi waaye amagul objectif. day am objectif nag looy mooy fu mu jëm. fu mu jëm waaw fi ne ku xamul sa objectif doo gañe sa jaar. da ngay li nga waaw doo ko li nga bëgg faaw moom ngay xam. ba même doomu aadama xam bëgg doo ko. waaw xamul fi bëgg di dem rek xam nga loolu lay mhm. la daloon kéwél ga. daa ànd ak doom ja di dox suba mhm. huit heures lañ xëy mhm. ba dix-huit heures taxawuñu waaw doom ji ko waa yaay nun baa duñ tardé mu ne ko doom duñ tardé ndax demuñ fenn <laughs> amul obsédé ndekete ku laa jëmul fenn xam nga ku jëmul fenn doo tardé doom ji moom jàpp na ne danoo tardé waaye am na fu ñu jëm mooy ñàkk objectif suñu borom nag loolu du ko dal da ngi mu wutal nag euh, société bi objectif xam nga objectif bi lan la yërëm jaam moo tax mën a yónente bi lépp ci raxma la demaat nee naa la société bi baatu bu raxma ci la lépp dox yàlla da ko créé turu raxma wutal ko bisse ci turu rahma wutal ko matériel ci turu rahma sàkkal ko ay cible ci rahma waaye objectif am sax rahma la wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yow yonent bi kat na nga xam ni société bi dara taxu koo jóg moo tax sëriñ Salim wa lil alamin rek lil alamin min lu dul yërëm leen taxul ma yónni la de te dafa dàq doog a saxal te xam nga ni oustaz ku def am nafiyu doog a def isbaat moo gën a foor ci waxinu arab nga def isbaat doog a def nafiyu mooy dàq ba nag doog a saxal moo tax bi yàlla yi wax dañuy laa ilaha dara amul nga xam ne foofu bu fa taxawoon tuutee mhm. nii lay doon mu a illallah mu ne illallah lu dul mhm. yàlla nga xam ne yàlla rek fi ne mhm. mooy dàq doog a saxal moo gën a moo gën a foor dana yónente bi nag wama arsal naak yónni wun la bu yemoon foofu dañ naan sa kii nañ seet ku ko yónni waaw ma ne ko illa rahmatan lil alamin lu dul nga doon yërmande yi mbindeef yi mm. kon mbindeef yooyu mooy cible la mooy yërëm leen mm. mooy objectif u bi mm. mu war a sax nag benn directeur général gis nga directeur général bii moom bokkut ak benn directeur général. est <laughs> xam nga nu ko lu ko yàlla wax. lu ko fal décret wala eh, waaw décret bu tudd dogalub yàlla. macha allah <laughs> fort la dogalub yàlla. décret bu tudd kuréel. laaj ma directeur bi nu mu Muhammadu Rasulullah. kenn moom. xam nga lu ko yàlla wax. Uh-huh. société bii di yërmande. Uh-huh. dama ubbi ko ca dëkk bu ñuy wax addina. Uh-huh. allahu alladi xalaqa sab'a samaawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazalu al-amru baynahunna li taxlamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma moo tax diggante asamaan ak suuf moom la ñu tuddee mulk mulk mulk mhm. mooy addina mhm. boo ko weesoo malakoon nga jëm yooyu yaneen la sax yoo xam mbiri maxrifa la yaa ngi dégg mhm. waaye mulk gii nag mooy addina sëñ Tuubaa nee na moo tàmbalee ci asamaan su njëkk si ba tax ta sara ndax moom lu ne la xam moom yaa ngi dégg eh, eh, <laughs> addina soo si nag <laughs> uh-huh. fi la yàlla créé société boobu muy jaxamam ñoo ñi mu nar a yërëm yonent bi ne xam nga lu ko yàlla wax yow directeur nga boo xam ni àddina bu tàmbalee nga xam ne maam Adama fi njëkk ba keroog ñuy wal bufti bi société bi benn directeur doo nga lay am te mooy yow yaa ngi waaj am problème xam nga directeur à vie à vie te li ci gën a garaaw mooy yonent bi dana ñëw nekk tudd Adama dellu si bi di Moussa dikkaat di Noohi nekk ñooñu amuñu loolu dinaa ci ñëw ndax accès gu ma ci euh, programmation société bi. waaye bëgg ne benn directeur général la am boo xam ni moo koy ubbi moo koy tëj. moo tax mu tudd kat xaatimu nabi nag imaamul mursaliin xanaa xamoo ne nit ñi réy réy yonente bi moo tax problème yu waaye bon xamoon yonente bi dara amul lu dul yonente bi. yaa ngi dégg dafa xoolal société am na directeur général mooy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi mm-hmm. waaye nag ab liggéey day am programme. Mm-hmm. waaw buñ ko tegul ci programme. am bit seeg. am ay matériel rek yooyu kat baax na waaye boo amul programme lépp yàqu ndaw budget bu dul am njuuj njaaj waaw ah, budget bu sang bi te géré budget bi du am njuuj njaaj de waaye programme bi ko yàlla wutal sax a garaaw mm-hmm. suñu borom dañuy programme bi mm-hmm. sa nurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim li ma lay wax lépp nag alxuraan la xataa yatabayyana lahum annahu alxaq mm. mooy gis nga yërmande ji mm-hmm. jamono ju la tolloog jamono mm. suñu borom dana ca wàcce yërmande ju ni toll mm. jox ko ka attan loola ci wetu yónente bi mu andi ko xanaa xamoo ni trois cent treize yónente la wax noonu yàlla yónni mhm. moo wax la tey ne la benn yónente dong la ñu mhm. mooy rasulilaay cap ñeneen ñoo ñi ay dogit lan ci yónente bi maanaam dañu dañu doon kii daal terrain bi maanaam dañu doon fàkk terrain bi ku fi musa ñëw dogu ma la waaja mm. nee na ma mm-hmm. waaja nee ma lu tax mu def ko 313 day jël trois bi mooyee ko beneen trois bi dara dootu fa des un bi rek des fa rasulullah rek loolu la ma waaja waxoon ne ma 313 da ngay def trois mooyee trois tous dootu fa des un bi rek ngay gis muy rasul xam nga loolu noo koy xamee ustaas mm-hmm. alquran mm-hmm. saa yuy nettali yonente yi da leen di tudd ban mat mu ne genn nu boo walaa leen jox te comme 313 lañ 300 nu boo waa war a waaye wa laqad arsalnaa nuuhan wa ibrahima wa naa fii suriyatihima an ata fii suriyatihima boobu nag lu tax an nubuwaat yi amut an nubuwaat amut ñu jam ko baa nu tas niye ko waaye an nubuwata waaye wal kitaaba xam nga 313 doo dégg ñu ne yàlla yónni na yónnee na saa cent quatre téere suñu borom ne benn téere dong la yi ki des yëpp ay jukki la ci alxuraan bu ñëwee da leen di synthétiser nee na yonent yi benn yonent dong la mooy yonent yàlla Muhammad waaye day moo tàmbale woon a ñëw ci maam Adama. moo ko matalit ci jëmmam jii di Moustapha. kenn ku ci nekk aw dogin nga ci moom lenn ci leeram gi nga indi. saa yoo matalee sa jamono dañuy jël leer googee. génne ko ki sa mbuusum nit. delloo ca total ba. mu doole ca lu tool ni lu ca nekkutoon roof ca keneen kooku dikk. yonent bi rek mos di feeñ. moo tax Sëñ Tuubaa mi xàmmee ne ko salli ala xisbil ilaah. siraatihi huddal ilah wa sahbihi wa sallimi na ko yow dong yaay kuréel bi te bu ne kuréel mbooloo la mu ne ko yow dong ngay kuréel bi salli maa ngi julli ci yow mi nga xam ne xisbil ilah yaay kuréel bi yàlla bi yow dong nixmatihi yow dong ngay xéewalam gi baabil ilah yaay buntu bi yàlla bi siraatihi yaay yoonam bi ahmaduna al muxtaaru ñu ne ko mu ne nuuru rusuli yonent bii na ngeen xam ne moom dong mooy leeru yonent yëpp xanaa xam ne ustaas suñu borom mësul di wax ci leer leer leer gi mu doon wàcce daat koy def jam ko mu pluriel mustaw da koy def singulier sama leer gi te te ñaa te yónente ñoo ñëw indi leer waaw lu tax mu koy def benn comme Adama indi na Moussa indi kay Noohin indi ñëpp indi ba ci Isa ñu koy wàññi ba naan 313 vraiment mbir mi 313 leer la war a doon. si ci yoon. ci yoon. waaye yuri doon an yit fi u. nuurallahi waaw nuurallahi lu tax waxul anwaarallahi <laughs> bi afwaahihim wallaahu mutimmun nuurihi waxul anwaarahu de li loolu nu ko xamoon rek mbir yi réglé fi mu loolu moo waral sax directeur général boobu loolu moo waral li tax ngay xam ne ñëpp moom lañ mhm. xanaa xamoo ñun jullit ñii trois cent treize yi yàlla yónni mhm. koo ci weddi weddi nga yónni yàlla Muhammad waaw loolu la ñu alxuraan alxuraan a ko wax xam nga lu ko jëndi loolu la ñu sant xam nga lu ko jëndi mhm. koo ci weddi da ngaa weddi ak wet ci moom ndax ñoom ñoo ñëwee ñëpp ci moom lan bokk moom moo leen matal waaw مات القرآن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببهد ونكفر ببهد ويريدون أن يتقسوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأهتدنا للكافرين حسابا مهينا gaani nga xamne dañ naan gëm nañ yalla yonent bi ne ay julil lañu ba nopi nak di am ñu ni wedd ci yonent yaa ñun cey gëm waaw yonent bi neen ñoo waaw moom xoolal koo ci xam moo xam nga xam turam moo xam nga ñàkk xam turam far fas nga koy gëm sa gëm doog a fal amana rasul bi ma unsila ilayhi wal muminuuna kullun laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi sañoo cee tax sañoo cee génne kenn ñëpp ay dugg loolu moo tax li ma la bëgg wax ne la kenn dong mooy directeur général bi kenn dong waxtu wu ne nag naka de day amee tur amee melo waaye melo woo da lay génne ci facette boo xamul mm-hmm. waaye mooma ak yeneen ndax yonent bi li mu doon dëgg-dëgg da nit waaye na ko di léegi nii déggu mën na leeram bi ci leen sàkk ñëpp ah nit ñi xamee ko ci mag aadama mm-hmm. aadama moo njëkk doon nit bi paa yëpp ñi paa bi ci gën a doon paa paa bi mag ci paa yi mooy aadama fi mu ne mm-hmm. benn meer doonul mag mag awaa awaa njëkk doon aadama mooy paawu paa yi lay bi yàlla bëggee sàkk aadama ah, moomu di paawu pay ak awa mi seen mère ci leer yoonte bi la leen sàkke kon buñ démé ban naan aadama ah, ak awa jur nañ ba jur ku tuddu abdoulaye aminatu ñu naan ñoo jur rasulullahi man bindé won aadama secret la waaye kookoo mak seen imam ok lolo tax muy ñew ci forme du problème léeg-léeg nga gis ko xam li da koy jaaxal li moko xamul mëno xam yoonte bi yoonte bi du ko fi jug dé maam fi mu toll da gis koo xam ne yii da koy ja loolu lum lay jaaxale ñàkk a dégg alxuraan xanaa waaye boo xamee alxuraan lii moom du la jaaxal jibril xool leen am jito ndax daanuwul leer yéen waaw de bu mu daanu leer bumu oustaz société bii moo mat a xam jibril kenn werante ne ni mos na day ñëw ci àddina xam nga daan ñëw ci yonent bi ndax mu indi alxuraan xali xalila yon càlla muhammad yon càlla muhammad muhammadu rasulullahi seen soppe waajal waaja xaliil yaa wu jaabil xaliil yaa moom de bàyyeegul xaliil yaa wooy xaliil yaa wu jaabil xaliil yaa xaliil yaa wu jaabil muwaaso bi wan silaa ولا تبقيا عن غيبي متقولا فكرم بما تراه منزلا أقوي بدلاي بالمجد والأولى ينشل محمد نبي الله سما غير جنت غيرني أخلال جناني مبوه kooku mooy nabiyun azimun xadri bilhaqi mursalu yuwàllu bi muskaana tiflan way wayun elo falillaaye muhammadu rasululaay sama géréy waaja minu waala wa ak malooy haminun li siyaadi ibadi mu halo habibun fil qulubi munab muhammadur rasulullah wa wa wa sama gerai waj rubatun fawqa sima muhammad wa kafuna Sabam mate mate amat yon ci muhammad wa ayudan bil amri wa naqiya kimat yon ci muhammad isa udida li rusli ayun takadamat yon ci muhammad fa ayu rasulullahi ana ñu muhammadu أجلا وآدو دخر بقسم وفضلا مقدم ينسل محمد ولن يخدعي بل من العيش أكرم ينسل محمد من الذي أخناي بل بل بل بل من الذي أرحم ينسل محمد جميل جليل في القلوب